Anyways.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 pëtëlëw maanaam ñoom ñëpp ñu jaar ci kam yoole ko ñetti ponkal yooyu nag nee ñu ay rëbbkatu jigéen la ñu ñoom daal seenub taxi clando la ñu yor doon ci piéger jigéen ñi te nag jigéen bu ñu fiir ba teg la loxo dañu lay yóbbu fu lëndëm kurus violé la bu yéeg ba wàcc sa morom yéeg ay way way ñee bon ñetti ponkol yooyu daal guddi la ñuy xaar saa bu guddi jotee rek ñu jël seenu kalandoo topp guddi gi jigéen bu ñu taseel rek maara dee taali <laughs> waaye nag day ku ci toog sa kër di nga mucc ci ñoom bi yoon nag rëbbkatu jigéen yooyu fi ñu dal baaxul ndax ab femme policière la ñu rëbb ba ne ko ciix ci guddi gi dal di koy violé ba noppi bàyyee ko ak melokaan boo xam ni maara dee taali <laughs> waaye laal ngeen laal ngeen musiba de naka noonu nag bi ko élément brigade de recherche bu commissariat bu Rufisque yégee si saa si la ñu lancé chasse bi dëkkee leen a wër naka noonu ci lañu leen wëree ba teg ci ñaar ñi loxo waaye nag safaru siiru man ba doon dawal clando bi te ànd ak ñoom moom may la def ma ne ko doo rëcc de ñaari violeurs yi ñu teg loxo nag si lañ leen yóbbee commissariat bu Rufisque placé leen garde à vue leen ak loi yool bi ba noppi convoqué ko borom taxi bi ci boppam moom it dal di koy teg loxo ngir déglu ko ci wàllum enquête bi fi mu ne nag siirumaan ba doon dawal clando ba te àndoon ak ñaari def ko te ñaaw tef yooyu fi mu ne ñu ngi koy wër enquête bi nag mu ngi wéy foofu ca commissariat urbain police bu ville bu Rufisque li ci doy waar nag ñetti ponkalu violeur yooyu doon rëbb jigéen ñi gannaaw bañ ci tegee ñaar loxo fi mu toll ñañu doon violé ña pagante ca commissariat ba ku ne di wax <laughs> moo tax ma ne réew mi neexu defar de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca mbuur doy na waar am maçon buy woo ci turu em mbay la fa ay gardien jàpp dóor ba mu faatu koy mbir mi ma nga xewee ca Saly yëf yi nag li ko waral gardien yooyu dañoo soupçonné woon maçon bi di woo ci turu M Mbaye ne dafa bëgg a tëb ci ab kër sàcc naka noonu ci lañ ko jàppee tàmbali ko dóor ni dóor kaña ñii ay gourdin ñii ay jaasi ñii ay câble ñu jàpp ko dóor ko ay dóor yu métti laa wax gardien ya ko doon dóor nag ñu ngi wuyo ci turu kenn ki ëttin au Traoré ala Faye ma nga xam ne moo def resta yi M Sall ak V Jebelaan bi nga xam ne nii am na jabar am ñaari doom ñoom ñëpp di ay gardien ndeysaan bi ñu jàppee M Mbaye di mason bi ñu yaakaaroon ne ab sàcc la dóor ko ba mu tëdd ki suuf sonn lool vers trois heures du matin bi ñu ko yëgalee magam bii di es Mbaye ci noonu la jógee bi mu egsee nag fi rakkam jooju tëdd ci la gis ñu takk tànk yi ak loxo yi ay buum dóor ko ba maara deeta Italie ci saasi la mag gi ne nañ ko tekki xaar gendarmerie ëskëy boobu ema mbay mason bi ñu jaawale woon ak sàcc bi sonn na ba mënul wax ndeysaan benn xippi xool la xool magam ji di es mbay dal di ñàkk bakkanam ci kanamam oh moo tax tey baax waaye nag Sénégal moom ñoxor njaay wub sàccay rek ku ne génneeg sa kër torture populaire bi tàmbali lu waay jekku yen ah moo tax yu mel dina bari de ci kanamu yoon nag ñu jàpp Ema Mbaye maçon dóor ba mu faatu kenn mënu cee firndeel ne da doon tëb ci kër sàcc moo tax ba yoon mujj na leen a daan ñoom ñëpp ñeenti atu kaso man leen ñetti million waaw góore waay moo tax maa ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a garaaw korona laa wax la xew ca mbuur day na waar ay xale yu góor ak jigéen ay élève ñoo fa doon def ab challenge challenge yu ba nag bët bu ci tegee tuuru la wax ma xam ngeen xale yi challenge lan lañ doon def maanaam calang gi di sëy ci seen biir pëtalaw réew mi yàqu na de ma xale yi dungu la ñu def laa la wax di sëy ci seen biir di ko envoyé ci ay groupe whatsapp ba mi fii te daal di génn ci mbedd mi fi mu ne vidéo yaa ngi ne lasar ci dëkk bi ay waay ay waay mim réew waaye waxoon naa leen ko de réew moo xam ne xale yi seen lépp sexe li ñuy xool yëpp sexe la ay contre modèle lañ leen di wan ay waay waay waay waay waay réew mi xale yi rëcc nañ li moo tax waykat ba woyoon bëgguma am doom doonoon seen xibaaru bës dig daje samedi yenen yeneen xibaaru buzz.